Youssou nuyu naa la. Ousseyn fay naa la ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant sama ñaar waajur mm. di sant sama dëkkandoo yi nga xam ne fii laa dëkk amel maa leen baalu ñun ñëpp. di nuyuwaat am jàmm xam nga di wax yàlla na jàmm yàgg yàlla na fi sax dëkk àdduna bi yëpp waaw. félicitations. merci beaucoup. ndam neex na nag de. ah ndam la gis da xaw a leer. <laughs> waaw dëgg la ndam moom noo amee baax na. Mm. mbëri loolu la ñuy wax. waaw ndam moom du tuut tamit tuutaluñu ko. Mm-hmm. waaw ñu def suñu démb yàlla may suturaal ñu may ndam tamit mbiru suñu borom la yàlla dogal ñu daan ñoo ne ñëw mu neneen. mais yàlla ah, balaa ñu ñëw sax ci biir làmb ji damay ñëw avant làmb ji parce que da nga jógee sa diggante caatu yoof ñu naan Youssou Ndour euh, ñu si bay déggoon naa fi ay combat yu yoo xamante ni gars yi nga ko ku ci mel ni armée bi mu fi mujjee jóge bi nga daanoo ci suba nga loolu ay armée ñeneen ñeneen ñu jékki-jékki gis nga jël Mbaye Diouf lan moo waraloon choix bëggoon relancer waat tax nga ci Mbaye Diouf wala nu mu demee waaw sama combat armé loolu daanaka demoon na ba taxaw. mu gàmm gay. ndax sama ménage gàmm gay ndax sama na ma. Hmm. na ma sa combat at diw. Hmm. ba ma ni ko yow boo d'accord rek d'accord naa. xam hmm. si ginnaaw suba bi mu woo ma ne mu gën a ndax kii bañ na yooyu. mais yàquwul ci yow mais combat bi yàqu si waaw. gàmmu gi. gàmmu gi tamit noonu la fa demee mais moom xaw mu demee tamit wax moom bëriwul waaw. la ma dugal ci Mbaye Diouf. waaw Mbaye Diouf loolu dugal mooy dañ ma ko jox rek mu nekk combat ñu wax ma ko xam nga tamit ma ko waxee tamit dama laaj samay mbokk laaj suma ñoo xam ñoom laa fa dese samay kilifa. Mhm. samay xaritu papa ak samay ndijaay. Mhm. ñoom Mbaye Diouf nga daan ko. mbër mu mag la ndax daa def làmb dara. Mm-hmm. xam nga ndax tey ji boo waxee maa daan ko daan am mm-hmm. seen. loolu palmarès la. Mm-hmm. xam nga loolu tax ma jël ko tamit yàlla may ma si ndam. mais nga jël ko préparation yi naka nga ko doon waajalee parce que euh, bu ñu bu ñu bu ñu gisee seen science yi ñaar dafa mel ni joxoo ko li ñu doon wax mag la da nga mel ni ku doon bëgg sama parce que da nga ne ko dinaa la dinaa la duma parce que da nga ñëw pour tooxal ma ma ñëw pour bëgg la daan. naka nga doon waajee combat wàllum préparation entraînement naka nga ko doon waajee. waaw noonu la fa demee ku la tamit neexul parce que bu la daanoon tey. moom mm-hmm. kenn waxatu ko. dëgg la neexul tamit xam nga comme ni nga wax rek. Mm-hmm. dama ànd samay mbokk. dem liggéey dem entraînement ji ànd samay nit. ñaata nga def. maa ngi def trois séances. dañuy xëy def trois séances bi avant koor gi wala après koor gi. non avant koor gi. Mm-hmm. dem dinañ. suba gi ñu dem musculation dem dindi ko suba dem musculation ba combat bi ci biir koor gi ñu dem école ba. Mhm. xëy dem buñ jógee école de musculation noonu ñu ko doon wax tamit mu nekk xale mag su ma su ma daanoon dañuy wax leneen mhm. waaw mais sant naa yàlla mu am si ndam. ñu gis scientifique bi ni nga doon communiquer. dama damay xeex ak moom ba dafa nekkoon loo xamante da nga wax pour am foo yóbbu làmb ji wala loo gëmoon la. non lu ma gëmoon la. da ndax moom. ndax moom tamit ba muy jël sama avance dafa yaakaar dafa ma bëggoon comme li ma wax dafa ma bëggoon toroxal bëggoon daan. Mm-hmm. ndax bu bu bu mu bëggoon mën a daan wala mu kii du jël sama avance. Mm-hmm. daa jëloon avance bi ne mën na ma daan xam mu nekk suma gànnaar nekk suma lépp. maa xam nga mu am jàmm ay njabootam di la moom sax xam na ndax mbëru mag la. Mm-hmm. mu ngi jiit ci waaw kon moom ñu ngi koy ñaanal moom tam baax baax baax. mais ba mu mat mbër koo xamante ni jàpp nga ne yaa ko mën jaroon na andi waaw mbër mu mag moo demee noonu man sama man du ma bis ndax tey su ma naan làmb rek bëri si dañ naan kii dafa yebaate kon yéen ñi wax si làmb ji yéen a njëkk wax na kii indi fi daraat wala kii deful li te boobaa am na dañ may ngàññi mhm. xam àdduna dañ may ŋàññi te mu war a mën indee noonu mais su ma kii mais sama sama ngëm-ngëm bopp laa indi mais indi woon sa affaire ak yàlla. mbokk yi ma fàttali leen ko Youssou bi mooy nekk dix-neuvième combat am moo ngi ci quinze victoire a défaites de. waaw noonu la fa demee kon defe naa ne palmarès boo xam te ne palmarès am solo la mais ngeen ñëw ci digg-géew bi. abi sif la rek nga dox ci kawam. mayoo ko mu xalaat. stratégie la wala boog da doon xool moom lan la andi. waaw dama doon xool ba pare moom moom mbër bu mag la dama ko déglu. Badou Sow man maay xale waaw man maay xale moo tax man maay wuti. Mhm. man maa war wuti pour dox si kawam. waaw mais doxuma si kawam pour dóor gi wala pour dama ne dox si kawam pour loxoom jug ma jàpp daan mhm. kon cok cokkaas bi nga cokkaas du woon du woon dëgg si yow. nekkul non du woon dëgg man. doon ndax xam nga communiqué noonu ñëw ba ci digg géew bu bëggoon moom. mooy li la wax sànq rek moom la sànq la rek. loo woo man mbay du man du ma dama doon wax du ma mag. Mhm. ndax bëri mag dafa métti. Mhm. tamit teel a njëkk teel a mujj. bëri mag teel a njëkk teel a mujj. waaw nekkul yenn mag yooyu mais comme tey jii exemple sama combat man mu daan bu taxawee ñun ñëpp dinañ xam ne du nekkul mag mag yooyu. déet ñëwul ci ñëwul ci combat ba pare dinañ ñëw ci loolu. yaa ngi bu ko dàqee mu daw ba ci saako yi génn dellusiwaat. waaw ma jàpp ko daan ma jàpp ko daan ko. ñu gis bi nga bi nga bi nga jàppanteeg moom danga nga gën a dugal sa loxo ci njàmbali pour mën a téye bu baax. lan la lan nga calculé woon dañ ne la dañ ne la boo ko jàppee caxabal nga ko mën a daanee wala boog da nga gis ne tànk yi dafa tolloo lan moo tax nga caxabal ko. parce que dañoo gis sa pied droit bi sa loxo droit bi da nga ko dugal ba mu jàpp moom lenn la jàpp na nga xëcc ko doog a wax caxabal bi. yàlla xam nañ indi woon dama ko doon xaar mu dóor taj ma daw sonko daan loolu laa liggéey mais liggéeyuma sax mais xam nga kon yow li nga liggéeyoon mooy benn ci làmb ji benn cong la làmb ji jeex. waaw moom laa bëgg te moo am. mais yu lan la da nga da bi da ci sentir doole ju bari wala nu mu demee noonu. waaw combat bi mu see sentir doole ànd ànd suma kursu mu liggéey loo mu doole ku si mel ni Lamine Faye Lamine Kolo. Hmm. suma papa ah ak kursu papa ñooñu dañ teg si man doole ju bari. waaw ah, sama grand ñu doon entraîné ñoom mais nag mais nag bu ñu dëgg rek bi ñu ko daanee bettu ñu bari de. waa bettu ñu bari ndax làmbu xale mag la. Mhm. man maa bëree mag am na samay morom yoo bëri nañoo mag bëri waatam mag. yaa ngi dégg kon noonu la fa nga daan ko euh, dellu si waat fa nga taxawoon ci làmb parce que parce que làmb nag moom ku daanu dem ku daanu taxaw daan nga ko ak léegi lan la gaa yi wax dem ak tey promoteur woo nañ la. waaw sama kër su Lamine moom yee sax si fajar. Mhm. wax nañ ko ay combat mu woo na ma wax ma man tamit dama am ñoo xam ne moom lañ laaj moom mooy suma kilifa. Mhm. waaw samay mag samay xarit papa ak samay mag papa faaw ma laaj leen pour ñu wax ma tamit kon fi mu toll nii daal faaw nga taxawaat xaw a xool fu gën a nooy wala fu gën a baax wala koo bëgg yow nga jëflante moom. non man mosuma wut lu nooy mosuma xool lu nooy man sama combat mosuma wut xool lu nooy. ku ma yàlla boole ma xam ne mën naa bëre moom rek mu nekk sama morom mhm. damay bëre moom. ñoom ñooy sama morom bi. moment bi Coins sama morom la. Coins man mu baat mu baat sama morom la ambulance bu kees sama morom la sama morom lu jeex si làmb ji. sa diggante ak Bour diggante ak Bour Sine. sama diggante ak Bour kooku loolu waroon am la bu yàgg. xëy na su ma xëy démb moo andi Mbaye Diouf. waaw su wax ni dañuy yaakaar dama ko bëgg a bëre moom wala dara man même nekkul Bour Sine ñeneen mën naa bëri ñoom. mais sa digganteeg Bour Sine làmb du ko daax. waa làmb du ko. ndax duggoon na géej waaye Eumeu Sène Junior daan ko mu ñëw andi ki nga xamante ni nii mooy Mbaye Diouf nga daan Mbaye Diouf sa digganteeg moom làmb du ko daax. comme li ma wax démb rek ama Mbaye Diouf di jël avance bi moom lañ ko njëkk a yóbbul moom muy day defaraat. di nga bëgg ak di nga bëgg ak Ndiaye man làmb amoo si xarit. ku ma jox wóor nañ sama adversaire ma bëre moom. mais est que est ce que biñ la dalee woo léegi wax nañ boole nañ ci Ndiaye Tine. Ndiaye Tine woo nañ ma wax ma ko man Ndiaye Tine man mënu di may booy di bëre booy rek. Ndiaye Tine Ndiaye Tine bëre moom may ko chance la wala geesu la. Ndiaye Tine bëre moom geesu la Ndiaye Tine koo xam ne six combats la bëre ma bëgg mu bëre moom. waaw ah, palmarès bi tolloowul moom tolloowul moom. mais Bour Sine daal boo ko amee jël. Bour Sine waaw su Bour Sine su ma demee ma xam ne moom wetu wee ñàkk des na fi su ma ko waxee ma jël ko. ñàkk daal moo ci dugal waaye bu dee sa sago sago moom xooloo. xooloo ndax Bour Sine dañoo yàgg wax suñu combat man moom mi bañ. Mhm. dañ koy yàgg wax moom soo ko yóbboo laaj moom dina la tontu yàgg nañ dox suñu combat mi bañ di xooli di xool lii bu laam boole moom tamit. naa bëri moom. dama dégg sànq ngay wax Modou ant sa xel dafa nekk ci Modou Anta. waaw sama xel moom mu ngi ci Modou bu baax ndax tey jii. Hmm. gën kay rek daan daan na. Hmm. te man moom làmb la. waaw ah, boobu léegi di amagul combat dama bëri dix neuf combat. dama bëri dix neuf hmm. baax. yow man ku ma mën di bëree guddi génn fii samay morom. yàlla def nañu est-ce que ëpp ma leen victoire. waaw say morom da nga am ci 19 combats. waaw te bu duggee ci làmb ak léegi yàggul yombul de. kon jeexal nay wax. morom wax la loolu. kon daal boo soñoon Modou Anta may la chance ngeen bëri. su ma soñoon Modou Anta moom. mais Modou Anta guddi ñu toll nii mer na nag de. ah. guddi ñu toll nii. mu Modou Anta mer na trop ndax li mu jógee li mu jógee ci diggante ma. xam nga làmb euh, ji tax mu yàqu. déedéet gars yi dañuy moytante. mais nag mais nag bu ñu waxantee dëgg Modou Anta ak ñi mu bëreel Modou Anta ak li mu def ci làmb amul muy sóor ci yow. daa ko seeti. donc Modou Anta ma fayul dara sax bu ma fay dama yokkal feneen fu may yóbbu ba pare daam ñeneen loo xam ne day tax mu am. kon jàpp nga ni soo woon soo jëflante woon Modou Anta ba noppi. ndax tey su ma jëflante woon Modou Anta ba noppi sama ramassement jën day leer. non yow nag yow nag munoo daan bay juuf munoo daan bay juuf taxaw fii di di di di xool ay. Mbaye Diouf daan Eumeu Sène. waaw non loolu yàgg na. non non li teew la ñu wax non non victoire. yow xam naa ne moom defet bi la gën a metti moom. ba tey ñu ngi koy lim kay la ko def. ba tey ñu ngi koy lim. koo ba tey heure bu ñu waxee Mbaye Diouf dinañ wax moo daan Eumeu Sène. dëgg la wala du dëgg. xam naa ne defet bi la gën a metti jën kay la ko def. waaw moom bokk na si ndax xamul tax mu bokk si ndax jën ba may naan boobu xaw ma defet boobu mbapat maa ngi koy rajo të musuma daanu. lan moo daan ci combat boobu. combat ba tey boo ko seetaanee man daanu ma dama metti mais daanu ma Père Diaw moo ñëw sax maa ngi nuyu. xam nga moo ñëw na ma maa ngi koy baax a baax suñu moo ñëw na ma ah, ma jugal fi nga tëdd nga dem yow daanu woo te boo xoolaatee laa mujj tey booy teg lii na nga tegaale la combat bi nga xool adduna bi xool. daanu woo daanu woo. da nga da ñu leeral. dafa na combat day leer loolu yaa yàgg day leer moom. en tout cas en tout cas en tout cas Diène xel mi dal na Diène am na doole Diène mën naa xeex. Diène sama combat man moom xaasiwaano bu baax. ah bu baax Diène xeex tam man la de guerre bu bëggee taxaw xeex la de guerre nox sant ma la ngay xeex am Youssou mu bëgg woo si xeex mu reculer arrière ma dox si koom moom. lan moo lan moo gën a ñàkkloo ci combat boobu. combat mooy dama doon forcer kele dama ko doon yóotu moom mu delloo mu cabaxal bi may dem teg sama ans yóbbu ko mu teg moom fekkam ñaanandoo jël dañ ko séddoo. ngeen bëree foofu bu leen fayaatoon du ngeen ko defaat. bu ngeen fayaatoon mooy dàq. non la ngeen bëree foofu la fa génn ci ay kele ci ay xale moment boobu ñu ñaan ci doomu mbër la ci ñaan doomu mbër ñu ci bàyyi ñëwoon kombaa boobu dafa teel ci moment bi ngeen ko bëree. non combat noonu la fa demee dafa teel mais tamit lu waroon am la. Mhm. xëy na dinañ daywaat ci kanam. dinañ daywaat man loolu laa jàpp. loolu mais fi daal Modou daal moom nga gën a viser daal. Modou Anta su ma xamee jël. keneen ku ne su ma xamee jël. Hmm. waaw. Zarko ñëpp su ma xamee jël. non Zarko ko Zarko moom day déranger. day day day yàq lu bari saw mbaam yeeg. Mm. gëreesu mbaam yeeg yooyu moom xajuloo ci ñu toll nii. man loolu moom si neex xam nga nag boo jógee ci defet di euh, waat boo duggee ci saw ko mu sot la saw mbaam nga. yàq de ba mu fiy jógee ñaar defet la fa yóbbaale. bari na. ah bari na. wax ah, jeex na. mbër ko man ba muy mu daan mbër maa ngi soo gis mu daan mbër. moom daan na fi ay mbër la daan. bari na kon bu fekkoon mu ci laa la waaw daan na mbay guy gi. mbay guy mbay guy gi man kooku dama ko jël tegee ko ne. lu tax. ndax ba ñu waree bëri dafa yaaj mu daw di teggi di teggi di teggi. mu teggiwul de nekk da nga am sa yoonu bopp yow da nga jaar nii mu mu jaar armée waaw bu jëlee armée te Youssou Ndour mbay gi. moo tax sa diggante ak armée. moo tax sa diggante ak armée. moo dox moo tax amul. ndax dañ nga seeti armée seeti mbay guy gi. ménagère Pape Diagne Seras na moom bu naree jël Youssou jël ko mbay guy gi. la woo téléphone. waaw moom bés la hmm. moom. xëy na kon mooy tan am na. Mhm. boobu ñu seeti mbay guy moo tamit gars yi bañ wax noonu. combat boobu tamit nag bu amoon date bu jege mën ngaa taxaw xaar. combat mbay guy kii. waaw boobu damay taxaw xaar. damay taxaw xaar waaw. ku si daan ku si daan wax leen ko ne leen nañ góorgóorlu de. combat boobu kay ku si daan kay sama loxo yi taxaw di la xaar. <laughs> Euh. waaw. soo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci combat bi ak ñi lay jàppale. waaw ñooy jàppale ñoom maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ku si mel ni Farandaw am ndaw Kéba Kanté xam nga Pape ma Fall ah ñoom Dongolo. Mhm. gaa yëpp maa leen sant di leen gërëm waa Cité Baraak maa leen sant sama grand vie nga xam dafa jóge fii ba Gambie ñëw. Mhm. Waly Touré maa ngi koy nuyu xam nga di ko ñaanal jàmm sama ñi may tëggal tambour major bi. Mhm. dama si loxo la mi ngi koy. si tuus bi nuyu waaw ndax répété wuñu lu ñu war a répété. wax loolu bañ ne combat bi deux jours mais biir ñëw mooy dàq ndax amateur taamal naa leen ko. ndax lamiñ bi moom day kéré day tëgg lu neex gars yi bàqu bégee maa nag ñu yor sama wàllu béyee ñooñu nga xam ne dañuy sonn su mel ni ñoom Talla ñoom moo jaañ ñoom booy Balla ñoom Laye Dieng ñoom Ismaïla Ismaïla Lo sama boo ñu may àndal di entraîné ñoom Samba Lobé gàqu deux maa ngi koy ñaanal moom combat. xam nga Siteu maa moom combat Samba Lobé am na combat yàlla ko yàlla may ndam école bi ñu fa am combat ñëpp yàlla na yàlla may ndam bu sedd guy géej waay bi yëpp nag. ma kenn ku lim ku ne da ngay jum di gërëm nabi suus maa ngi koy nuyu ñànk sonn si combat ñànk waaw di nuyuwaat ñëpp am jàmm si fi ma dëkk nii depuis trois jours ba tey kenn nelawul maa ngi jégaluwaat waa koñ bi ñëpp di jégaluwaat ñëpp di baaluwaat ñëpp xam nga sama xarit yi tukki yeeg ñoom Demba joor xam nga sama seex maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ko nuyu mhm. waaw di nuyuwaat ñëpp ñëpp am jàmm di ñaan jàmm sax Sénégal dàq waaw. gis ngeen mbokk yi noonu la demee woon tey ñu seet si ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour moo ngi ci 19 victoire am na xale la boo xamante ni jar naa bàyyi xel xale la boo xamante ni dafa bokk ci làmb di ko ñaanal li ci kanam mu dàq li nga xamante ni moom moo moom la jot a romb di ko wax na nag na gën a entraîné waat ndax defe naa ne tey la affaire yi gën a mën a métti ndax ñi mu fi lim noonu comme euh, ci jël ku nekk rek bu ko jëlee dina xam ne am na combat maa ngi ci jaajëfal Adama bu baax baax sama cameraman bi maa ngi koy jaajëfal nag euh. bu baax sama famille yaay ah nga bàyyi ma gërëm mais sama famille yaay ma nuyu leen waaw ak alas mi nga xam dafa jóge waalo mm-hmm. waaw waaw waalo bépp lu ko dalee jaaminaar séer bokki neddo xam nga Kolda sama mbokk jabar yi ñoom ñëpp maa leen nuyu mention spéciale Balde Balde yi. <laughs> man tamit maa ngi nuyu sama mbokk waalo waalo yi maa ngi nuyu waa Richard-Toll waa Kër Mbaye waa Milo waa Dagana ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax Zubaay maa ngi lay nuyu sama xarit bu baax bi sama xarit bu ñaawul bi kenn du yow yaa gën ci man Adama kontaan naa ci yow di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen bër ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf.